lay tee maa jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jommalul boppam soxna Jaara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 li ma ko waxee woon léegi rek ndigal ko sëriñ bi joxoon ndigal lii daf koo dabaat muy njàngum alquranul karim mi ci àllarba ji waaye teewul nag njàngum kaamil mi ñu def ci poroxaan ji day weñu incha allah bu ngoonee danañ gontu si bu subaa it danañ xëy teel a xëy si incha allah suba it si ngoon it incha allah fi la nekkaat ba ajjuma incha allah dañuy xëy jàng door a def nag tëj ci waaye ndigal lii sëriñ bi joxewaatoon gannaaw bi te ndigal bu yeesee. te ka ko ka ko joxewaat ko la gën a yees day day ëpp doole lu njëkk la moo war a sëriñ Fadilu taxaw ci taxawaay bu am solo bii kon nag sëriñ bi e, ndigal làngoogu ñi ngi ñaanit moom mi ko xam ne moom la sunu borom dogal sëriñ Muntaxa teg ko ci loxoom muy sëriñ Fadilu sunu borom dimbale ko ba mu àggale yéene ji ak e, li tax sëriñ bi tànn koy ci biir ñu bari ba jox ko koy yàlla suturaal ko dimbale ko jàppale ko ba fi mu ko bëgg a àggale mu àggale foofu eh, te eh, ñu ànd ko sëriñ Mountakha lu yàgg yàgg ak sëriñ Mouhamadul Fadil Bousso mi nga xam ne moo toog a jotaay sëriñ Afia Bousso mi nekk ci wetam nga xam ne boobu ba léegi ba ko sëriñ bi joxe ndigal li ba léegi waxtu ne daf koy eh, jàppale ci liggéey bi ak sunu mbokk turé turé yëpp nga xam ne ñi ngi jàpp ci liggéey bi sëriñ Mouhamadul Bachir Bousso ak mboolem njabootu Bousso bi gépp daal ak njabootu turé yëpp ñi ngi jàpp ci liggéey bi waa kër sëriñ Moustapha Diaw ñi ñëpp daal Alaaji Fàllu Omar ña ñëpp sëriñ bi nee na gis na kenn ku ne taxawaay bi nga taxaw ci eh, liggéey bi eh, kon daal sëriñ bi nee na mi ngi sant mboolem ñi nga xam ne ñëw nañ fi ngir taataan si li ngir tasaare ko ba ñépp mën see jot xam ne ndigal li sëriñ bi joxe woon eh, jëfe nañ ko suñ kam kàttan la ca la ca manqué nag ñi ngi ñaan yàlla mu dimbale ñu ba àggaleel ñu ko waaw ah, te xam ne sunu lot la waaye buñ sañoon xaqatuqaati yi daal la jël waaye mastataxtum dañuy dem ba lott ci dëgg-dëgg door ko jëfee kon nag euh, ñi ngi ñaan yàlla daal sëñ bi lépp lu ci euh, doye ñu xam ne sunu manqué manqué la waaye lépp lu ci jiw ñu sant ko yàlla mi nga xam ne lépp ak mat ci moom la nekk wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu kon nag dañuy jox sëriñ bi mu fat jàng xatmu bi incha allah